asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziara di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul di ñaan suñ borom dolli ko yàgg lool te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal liggéeyaa ko nam ba Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall di ñaan suñ borom dolli ko yàggal lool te wéral ko di siyaar mboolem njabootug maam Serigne Fall gépp comme ni ngeen ko gisee rek tey la juróom-ñaari fan euh, dëppoo ko le 18 mars 2024 ñu ñëw fii nga xam ne tey mooy Touba Palen fii ñu taxaw nag gis ngeen suñ ginnaaw njoowaan gi euh, fii mooy kër Serigne Cheikh Fall Mbawar fii mooy pencum Palen euh, Serigne Cheikh Fall Mbawar di ko ñaanal baax suñu borom dolli ko fee yàggal lool. te wéral ko toog jotaayu Serigne Aliou Fall Mbawar Serigne Aliou Fall jàmbaari Maam Cheikh Ibrahima Fall joo xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéeyal Maam Cheikh Ibrahima mu jóge fi Serigne euh, Cheikh Fall Mbawar euh, taxawu ndog yi ba waxtu nii tey ñuy wax yéen waaye tamit ànd koog mboolem njabootu Serigne Aliou Fall Mbawar gépp ko baaxoo def ci mboolem bundu kër yëpp weeru koor gi ñuy fas yéene ak yéen ci mboolem bundu kër Maam Cheikh Ibrahima bu ñuy toggee ndogo li comme niñ ko waxee rek ndogo yi ndigal loolu lu Maam Cheikh Ibrahima jotoon ci Serigne Touba loolu moo waral mboolem bundu kër Maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ko taxawu ci fii ak ci feneen mel na ne eh, njaareem eh, dañ koy taxaw waaye daar xafoor dañ koy taxaw waaye fépp foo xamante ne njabootu maam si Fall ñi ngi fa rek ñi ngi taxaw ndogo yi kon noonu la ñu eh, dugg ci biir xool liggéey bi xool waañ bi waaye jël kàddu yi nga xam ne mooy jóge ci sëriñ bi àndaat ak yéen toppal leen convoi bi ba keroog ñu koy jébbale sëriñ bi bu ngeen ñu toppee ñu dugg ci biir bismillah laa ilaaha illallaah laa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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeen ko gisee rek euh, ñoo ngi fii ci waañu Serigne Cheikh Fall Mbawar di ko ñaanal baax suñ borom doole ko fee yàggal lool te wéral ko Euh, waaye di siyaar baax tey ñaanal mboolem njaboot gi yëpp rek ñu ñëw ci waañ wi di siyaar soxna Faaba Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñu waañ wi waaye ñu taxaw ak ñi nga xamante ni eh, ñoom ñoom la jëwriñee muy soxna Asu Diallo soxna Asu euh, waañ wi di waañu kër Serigne Cheikh Fall Mbawar at mu jot mel na ne euh, mbir yi day yokk waaye mel na ne da ngeen am organisation boo xam ne saa yu ngeen xëyee ci ngeen di nekk ba waxtu yi di ndogo yi di war a dem ci kër Serigne ba nan ngeen taxawee wàllum taxawaay ndoki ndogo yooyu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa waañ wi yëpp di ñaanal sëñ Cheikh Fall moo war mu yàgg fi lool yàlla na yàlla dund ay ati ati ati at bañ koy weer di weri di ñaanal mboolem ko bokkal waañ wi rek ñu ñaan gudd fan ko ànd ko wér ku wérle ñu ñëpp ñu fekke ko di ñaanal soxna Fama Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu jëriñ ñu ànd ak moom liggéey bi boobu ba tey moom la ñu di liggéey at mu jot la ñuy àndal di ko ñaanal moom gudd fan ko ànd ak wér maa ngi ñaanal ñëpp bàyyi bàyyiwuma kenn rek mbooloo ku ma nekk waañu rek maa ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm jiit nag dafa metti waaw fii da nu muy doxee waañu ko suñu Cheikh Fall daa am nu muy ay pëccokoo amu fi saa yu ñu xëyee lañ koy teg suñu xëyee li ñu war a def dinañ ko def dinañ dem génn ji li ñuy togg andi ko fi aneen andi pombiteer yi jëli ko sa biir kër gi andi ko si waañu heure lañu am heure taal heure la ñuy yàq heure la ñuy yan it. ban heure ngeen a xëy si fii. fii 9h lañ fi xëy 9h 10h. 9 bu ngeen ñëwee lu ngeen di njëkk def. bu ñëwee dañuy njëkk a dem génn ji pomme de terre bi ak soble bi ñëw xolli. ra génn suñuy bagaa raxas ci néeg yëpp bale ba mu set loolu ñuy njëkk a def bu ñu xëy see. Euh, mu mel ne ni ngeen àndandoo mobilisé wu ngir fa yéene taxaw weeru koor gi euh, ba mu ba mu jeex daaw noonu ko noonu ngeen ko defee woon. waaw noonu lañ ko defee at mu jot moom lañ koy def. ni ñu mobilisé boo xoolee rek déguisement yi rek ni mu demee rek noonu mooy suñu mobilisation loolu moom amul sax ñu mën si laal laal laaj dara waaj la si leeral dara sa bët rek moo lay may. Euh, ndogu yi mën nañoo xam ban xeetu ñam lay doon. tufe lay doon. yàpp ak pombiteer ak soble moom mhm. la ñuy togg. ki gën li gën lañ koy jox maa mel ne ne da ngeen koy defar ba mu baax ba neex ñeen doog ko yóbbu. waaw dañ koy defar ba mu baax kay ba mu neex ñu doog koo yóbbu xam nga lu neex moom la ñuy yóbbu xam nga kenn yóbbuwul ñuy dégg ñu naan ndogu yi dinañ ko togg ba mu yegg te duñ ci ñam. waaw dëgg la te am na kay nan ko togg ba mu egg te kenn du ko ñam du xam luñ saf ndax dañuy xëy si qualité la si lañ koy teg. ndax bu premier jour ba ngeen bi li ngeen ci war a def. waaw premier ci jour. waaw bu ñu egsee ba war a taal bu ñuy ñam xorom suñ sama loxo bi laay nat moom laa koy xam toujours moom laay nat même bu dee damay absenté si waañu seet ñi ma fi bàyyi dinaa ko wax li may may xorom day nat loxoom moom moom lañ ciy def bu dee ndawal gi dañuy kaata buñ kaatee ba bu daggee ñu xam ne ñor na. Euh, lan ngay soññiwaat soxna yi nga seqal liggéey bi. ah xanaa di leen gën a ñaax rek te xam ne liggéey Serap Fall moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la te ñoo ngi liggéeyal koo xam na ku mat a liggéeyal la ku mel ne sëñ Serap ma Mbawar moom ku ko liggéeyal mu fay la te moom rek mooy suñu moom mooy suñu lépp rek dama ñoo ko fas ànd ak moom di liggéey rek di wéy si ndigalam te moytu tereem. fi ne fu ndogo yi toll fi ne. ni sóor si ndabal dañoo rosi sóoraguñ soble dañoo rosi dañuy togg ndawal gi ba mu ñor ñu doog koo def soo doog a sóor soble yi waaw moom lañ toll. rek ñoo ngi ba léegi ci waañ wi ñu toog ak euh, suñu maam soxna Awa Ndiaye soxna Awa Ndiaye euh, fekke mu suñ Moussa moom nag fekk na lu bëree bëri ci euh, taarixu ndogu yi nga xamante ni moom la ñuy togg ñu fekk ko tey ci waañu Serigne Cheikh Fall Mbawar soxna Awa lan nga ko tuuti ci nekkuk Serigne Aliou Fall Mbawar ak ndogu yi ñuy togg. man da ndogu yi kañ laa ka tàmbalee togg sëñ Mor Talla Fall toggal naa ko ñetti ndogu mook sëñ Aliou Fall Mbawo ñoo bokk wenn waaju ndey ak baay ba boobaak tey nag man maa ngi fii togg defi yàq mi at ma nga xamee ne sëñ Moustapha Fall ki doonoon xalifa Cheikh Ibra Fall dem na Touba ba suñu jonni tey maa ngi ci ndogu yi ma waaw nan ngeen ko daan toogee bu njëkk nun ko daan toogee dañ daan def bu ñu xëyee boobam ndox daa jafe ñu dem buntu kër sëñ Fallu ku ne leen fa yaar dam ñu ko ci ndogu yi nga door a root yóbbu sa kër di di di ñu taajal nu pepp mi nuy soq taajal nu saaku kemb ak saaku sëb ñuuru ko ci ci nuy mag yi nga xam ni saaku pepp beeg bu sëb bi ak yëpp ci biir ci yaari ci lañ koy séddale loolu de fekk naa ko ci sa mortal Fall Karama nag mhm. sa njaay li Fall wax euh, ngay ngay gis soxna yi ni ñuy mel ci waañ bi ak bu njëkk seen waañ nu meloon bokkuñu ndax dañoo tóolewul ak jamono ñun booba lu neex lan daan togg waaye nag boobaat mbooloo mi tul nii ci la ma fekke ndax man duma ci wax lu ma xamul hmm. waaw. lan nga nu mën a baaxee tuuti ci signal yu Fall Mbaor. xam naa muy saab sëriñ di saab xarit loolu da xam naa ko ci moom di saab sëriñ di saab xarit di magi saab sëriñ hmm. bëgg ko loolu gëm ko loolu garab bu mu naan moo ko ko wutali hmm. loolu da fekke naa ko te sañ ko wax man sama borom kër si garab yooyu fa am sa soxla moo ko wut. lan la soxna yi ñu fi mujj mën a roy ci ñu fi jiitu. bëgg lu baax bañ lu bon rek. man de ku ma ci déggal dangay bëgg lu baax te bañ lu bon faaw loolu de laa ci xam xuma nag keneen waaw. jamono yi ngeen koy togg xawoon naa booba jamono yooyu jumtukaay yi am léegi amutoon. booba bu ñu toog seen ndogu dañuy ay ay loo njëlli ku ko aaye ñett koy aaye bokk soq bokk gi wali ndax booba machine amul booba am machine amul ñett ñu aaye tey bu ëllëgee ñett topp te aaye loolu da leen fi nekkoon ci ci jamono sëñ Mor Talla Fall mhm. loolu booba ndogu yi lu mu daan doon. ndogu yi ndogu yi booba booba booba ma ma ceeb la ñuy def ak yàpp ñu xëyee dañuy rey aw nag rey ay xar ñu taal toog waaw. nii ñu koy yanoo di ko yóbboo noonu lañ ko daan defee. nii ñu koy yanoo di ko yóbboo noonu lañ ko daan defee te kenn du ci mos dara booba it. kenn du ci mos dara. ñi koy togg duñ mos dara. ba tey ca ba tey ñi ko ñun koy togg duñ ko xorom sax benn yoon lañ koy mos. ma nga de duñu ko mosu loolu de maa la ko ci jàmbaar ji sëñ Cheikh Fall Mbawar lan ngay wax ci moom. sëñ Cheikh Fall Mbawar di jàmbaar bi sama doom saa dooma yaayam laa ba mu am juróom benn at laa dëkk nag moom ba nu gën <laughs>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 mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek euh, ñoo ngi fii ci kër euh, Serigne Cheikh Fall Mbawar fii ci waañ bi waañ bi ñu taxaw nag mooy waañ bi nga xam ne fii la ñuy taxawoo super bi ñuy siyaar baax tey ñaanal bàjjen soxna suñu bàjjen Njaxat Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke eh, di ñaan suñu borom gën koo euh, kàttanal dooleel ko. ba mu mottali yéene ji mu am ci liggéey bi euh, bàjjan ñu ñëw fii tey ci euh, waañ bi fekk si la fi ak ñi nga àndal liggéey bi mu mel ne super bi at mu jot euh, yéen a koy taxawu waaye ci sa ndigal waaye ci ndigalu suñu Cheikh Fall Mbawar soxna soxna Asu Ñang mii nga xam ne ci ñi ànd ak bàjjan la bokk ngir leeral ñu tuuti rek ci taxawaay bi nga xam ne ànd ngeen ko bàjjan ba taxawal super bi nga xamante ni tey mel ne taare la ci yoon wi. asalaamaaleykum. ñun waa Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu leen ziare di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ko ñaanal sëriñ Cheikh Fall Mbor yàlla na fi yàgg te wér du ko ñaanal suñu bàjjen soxna Ndiakhate Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ànd bu ne moom si liggéey Cheikh bi ñu ngi ko ànd moom si suñu waajur soxna Seynabou Fall ñu fekk ko si waañ bi ànd moom liggéey bi muy suñuy waajur yoo xam ne teete nañ si kër gi boole ñoo soxna si tedd si ñu topp si ginnaaw mi soxna Ndiakhate Mbacké suñu waajur laa fekk si waañ mi yaa seen bu faal muy jëwriñu waañ bi yàlla dogal ni lu si bari mag xaw a jege mu mu mu sañ sant ñu soññe bi ñu nekk si nekk si ginnaaw soxna si tedd di fa seen ànd moom liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Seex Ibra si ndog yi waaw. lan nga déggee ci sa waajur woowu sa ci sa waajur woowu ci taxawaay bi nga xam ne daan nañ ko taxaw super bi di ko tàmbalee ci jamono Seydina Aliou ba tey Sëñ Cheikh Fall. waaw damay faral di dégg mu naan jamono Seydina Aliou ba tey. ak Serigne Cheikh Fall Mboor mi ko joxoon liggéey bi bu ñuy ñëw si ndogu yi na ñuy sellal di set di jàpp di sellal liggéey bi ne danaan toujours bu ngeen nekkee ay soxna sax seen xaw a soppeeku bu leen jege kasloor bi ndax am solo gum am solo ngir bëgg mu bëgg ñu liggéey Cheikh bi lañu du ko sellal du ko setal soxna Njaxate mi nga xam ne tamit moo ne suñu baajan doon suñu jëwriñ si kër gi moom tamit sellal go ak taalibe loolu la ñuy àndee moom liggéey bi ndax super bi daal bu sa ñoon dañ si nekk nekk woo xam ne nekkin wu sell wu am solo la ba ñun koy jur ñu xam ne cër ba leen war a jox delloo na leen ngir seex Cheikh Ibra ñu nekk ànd ak ñoom si liggéey bi di liggéeyal Cheikh Ibra si jamonoy sëñ Cheikh Fall mboor nag laa fekk si lu bari waaye boobaak léegi ni ma gisee mi doxee dañuy ñaan fan fanu gudd ak wér rek ndax xam ne luñ si gis daal dal na suñu xel ndax liggéey bi sell na set na soxna si tedd si teet nañu si ba ñoo ngi si loolu nan ngeen ànd ak bàjjen liggéey bi mel na ne euh, yéen a ànd liggéey bi boobu ba léegi. waaw ñoo ànd liggéey boobu ba léegi ndax moom toogul ne taalibe yi nekk leen si soxna si bu xëyee mi ngi si waañ wi di liggéeyal Cheikh Ibra si liggéey bi si jëmmi Serigne Cheikh Fall Mbawar su xëyee mi ngi ànd ak ñun si liggéey bi mi ngi ñëw di nu wan liggéey bi nu war a sellee si xoolum pomme de terre bi ak defar ginaar liggéey bu mucc ay buñ koy def bu dee mis yi tamit liggéey bi mucc ay buñ koy def du ko ànd ak moom si liggéey bi jamono yi sëriñ Cheikh Fall Mbaor ak léegi daal nga xam ne fi laa fekk suñu waajur bu jigéen soxna Seydou bu yor waañ wi nam ko yoree ba léegi daal dara soppeekoo gu si ndax ñu boobu ba tey mi ngi sell di mel ni nu ko bëggee ñoo koy defee noonu waaw. super bi mën nañoo xam lan lay doon. waa super bi day doon ay ginaar doon ñaar super ndax da daan doon benn léegi nag danoo gën a yokk doole super bi mu doon léegi ñaar da yenn saa ñu def ay gàtt lii ñu misi ko lii ñu def ko ay ginaar. nu mu dikkee daal di ay xar wala ay ginaar dinañ ko liggéey noonu ba mu sell ñu jébbal ko ki ñu ko war a jébbal. bu ngeen xëyee ban heure ngeen ñëw ci super bi. super bu ñu xëyee dañuy def huit ñu bari dinañ ñëw ngir commencer liggéey bi ndax ñu si bari balaa onze heures dinañ xolli lu lépp pomme terre bi xolli soble si defar ko raxas ko raxas bu sel defar ginaar yi defar bu sel bu mucc ayib defar xar yi defar bu sel bu mucc ayib nga xam ne balaa midi dinañ fas yéenee taal heure yi ngeen ñu fekk ni tembe avant ni añ liggéey nañ ko liggéey bi jaar yoon ba teggi ko waaw. kon lan ngay soññiwaat euh, mbokki soxna yi nga àndal liggéey bi mel na ne euh, weer wi day doog a tàmbali. waa day doog a tàmbali ak Baye Fall ma heure bu xëyee liggéey baa ngi si kanamam boobaag léegi avant koor gi di ñëw ba léegi. jàpp nañ ñoom chaque jour ñun ñu ngi si kor gi ndax sëñ Cheikh Fall Mbaor añi àjjuma yi ku ne dégg na ko weer wu ne mi ngi togg du yóbbu si jumaa ja di di liggéeyal maam Cheikh Ibra di ngéntawaat jumaa ja kon ñun miin nañ waañ si ëttub soxna njaxat bii miin nañ waañ si kër Serigne Cheikh Fall Mboro fekkoon nañ nag ñu nekk si ñoom ñii tamit nii lañ ko àndeek ñun kenn du arrière kenn du randu kenn du puus tànk cin li parewul ba ñu jébbal ko yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu nii lañ koy àndee di ko liggéey liggéey bu set suñu paree fu ñu nekk dañ koy seelal ba mu set ngir bu subaak bu ndikkee mën a nekkaat si liggéey bi nii rek lañ koy àndee fu ngeen toll ne a ngi waajal nii ñu ngi waajal ni yekk si yekk daal lan toll nii soxna si tedd si daal la ñuy déglu su nee yekk leen rek moom mooy yekk ñun ñu topp si ginnaawam di ko jàppale si yekk bi waaw. laa ilaaha illallah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 mbokk yi kon jërë ngeen jëf rek ba léegi rek ñoo ngi fii ci kër sëriñ Aliou Fall Mbawar kër sëriñ Cheikh Fall Mbawar di ñaan suñu borom dool di ko fee yàggal lool euh, te wéral ko boobu ba léegi rek ñu ngi ci liggéey bi comme niñ koy taxawoo ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp euh, année bu jot nag ni ñu ko daan defee bu ñu ñëwee sëriñ bi euh, xam ngeen ne sëriñ maam Ibra Fall mi ma um, bokk ci leeru sëriñ bi waaye di jàmbaar lool ci yoonu maama bi di ci liggéey liggéey bu am solo it chaque année ñu ko fiy fekk sëriñ bi di ñu booleek moom Euh, sëñ Maam Ibra ginnaaw bi ñu la ziar baax ci weeru koor gi di la ñaanal euh, kàddu yoo xamante ne dina jëm ci taxawaay bi nga xamante ni njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Mouridina ñi ngi koy am weeru koor gu jot mu mel ne ndigal la ci ñoom. ok jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin ilhaadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xadimi xadimihi almuridul akbar maam cheikh ibrahima fall babul muridin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi yaqin wa baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi déglu ak dinu seetaan moo ngi leen di jaar bu baax di jiital ci sunub nuyoo ak sunub siyaar Cheikh Mamadou taxa ak jëwriñam ji tedd ja sëriñ Amdi Moustapha Fall moom Cheikh Amadou Mbenda on nañu siyaare itam sëriñ Cheikh Fall toogee jataayu sëriñ Alioune Fall te tey ji ñuy àddoo fii ci ëttam waaye penc fii ci pencum Touba Fall di am pencam di ab ëttam di nuyu bu baax tey siyaare di am mbégte itam waxtu wu nekk ci teewaay boo xam ne yéen a ngi koy teew di ànd ak noonu ci liggéey bi ci yaatal ko ak tasaare ko ba kenn ku nekk jot ci waaye kenn ku nekkit man cee xamee waaye kenn ku nekkit man cee jariñu li nga wax ci sa njëlbeenu wax rek xam naa ci lañuy dellusi ci sa njëlbeenu kàddu mooy ni ñuy taxawee ci ndogu yi te muy ndigalal Cheikh Ibrahima Fall ndigal li nag mooy dafay ndigal lu bàyyeekoo ci sëriñ tubaa Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasoul ñëw ci jëwrinam ju tedd ja Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ndax ku nekk xam na ne ndogu yi bu mbir daanaka bu demee ba am téeméeri at yu topp rek mbiram daanaka lu sax la lu nu war a mën a leeral ci tënk la ndax wax maa ngi wax ne ndog yi daanaka mi ngi tàmbali ci 1912 ci at mi nga xam ne ci la Serigne Touba Xaadimal Moustapha ku tedd ki ñëw njaareem looloo tax mu naan raamu machir yi ilaa Njurbel la daa la Chachine lachache boobu la ñëw njaareem ci la bind ab lettre nag yónnee ko jëwriñam ji Cheikh Ibrahima Fall booba ku tedd ki Cheikh Ibrahima Fall mi ngi Thiès hmm, foofu nag ay werante yu bari am na ñi ne ñu ngi njëkk a toggee njaareem ñii ni faneen waaye li wér te mooy Thiès la ndax diggante kër Cheikh bi nga xam ne fa la Cheikh Ibrahima Fall nekkoon ak fii nga xam ne mooy kër gu mag ci njaareem defe naa ne jërul luyee ak saxaar kon jóge fu sori te demu jafe moo ko sababoon sabab boobu nag mooy xamle ne kon ndogu yi ñu ngi ko njëkk a toggee Thiès en 1912 bi nga xamee ne sëriñ bi ñëw na ñu def ko résidence surveillée à Diourbel li koy firndeel it mooy booba Cheikh Ibrahima Fall dafa def contrat ak genn kërug saxaar kërug transport bu ñuy wax semaine de fer mu defoon nag moom contrat ci saxaar gu ñu wax régulier régulier googu nag moo daan def waxtu wu ñam yii Cheikh Ibrahima Fall daan defal ku tedd ki sotte Baye Fall yi ànd ak moom yëpp ko ci saxaar googu bu ñu sikkaree ba gaarub njaareem ñu yanu dab yi nag wuteeg moom kër gu mag euh, ci ndigal loolu fonk gi ko sëriñ bi fonk ak xam dayoo gi mu xam dayoob liggéey boobu sababoon na waxtu wu ma saan dégg Baye Fall yi sikkar rek day génn gàttandu leen ba ci bunt bu ndaw bi ba dalal leen door a dellu kon liggéey la bopp sëriñ Touba digle woon digaloon ko Cheikh Ibrahima Fall na mu ko daan waxee ni ki ñu daan ki ñuy digal digal nañu bi mu ko yónnee lettre boobu nag ca Thiès wax nañu ne Cheikh Ibrahima daa wax ne sëriñ bi de wax na ne day am gan nañ ko gàttandal gan gi waaye nañ ko gungeel gan gi nañ ko ganeleel gan gi nañ ko gunge bi ñu waxee loolu ci la. mag ñi ne de kon xam naa sorofa uy la ndax sëriñ bi moom ni fonk yonent bi salaahu salaam ak njabootam moo sabab yaatalu gatandu bi ak yaatalu ganale gi ak yaatalu gunge gi Cheikh mi nga xam ne moo gën a dégg ñëpp sëriñ bi wax leen ne sëriñ bi de moom waxut gan yi ngeen di wax sëriñ bi li muy wax mooy weeru koor daal di téen ab diir siggi daal di wax ne weer wi kat tey la seenu bu njëkk waaye doom na ngeen xam ne du feeñ tey ndax ma nga ñaareelu asamaan kon ñiy werante naan weer feeñ feeñ naag feeñu tak gis nañ ko ca nangam ki ko xam ci ñaareelu asamaan moom werante wut ci aw weer daal di wax ne du feeñ tey suba lay feeñ kon gannaaw suba mooy benn panub koor daa ne ko ko woor ba mu jeex loo ci amee ñu ne ko faal man nga cee amee weeru koor wu yàlla nangu mu ne bu ko dënguwut nag ñu ne tekk mu ne Ibra Faal na loolu moog sëñ Bamba nee na liggéey bii mu may liggéeyloo képp ku ci defub tànk mbaab su mbaab dërëm mbaabu rëy dana ci ràmm sa juróom ñaari maam donte mu mësuñoo jëfal yàlla dara loolu nag mag ñépp kenn ku nekk def ca mu cey def lépp mu wëlbatiku ne weer wii de am naa ci lu ci kenn mës la am ndax gannaaw ku ko woor ba mu jeex weeru te yàlla nangu ko weer ngay am Ibra Fall ak waa këram xeeb nañ loolu sëñ Bamba nee na maag ñi ànd di def ndogoom yii defal nanu ci weer wi saay bis bu ñu xëyee togg ndog yi defal nañu weeru koor wu yàlla na ko loolu nag dafay mel ni weer wi daa indaale xeet yu mel noonu ndax inna anzalnaahu fi laylatul xadar wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahrin naaw sunu boroom moo sàkk genn guddi ci weer wi def ci guddi goo ci bis yi def ci guddi goo xam ne moo gën junni weer bu ci tànneeb jàmmam defal ko ci loo xam ne bis bu ne am na weeru yàlla nangu defe naa ne jàmm bi tëlee tey ngortu tey tayel ci lool la waaye yàlla moom am na lépp loolu itam moo sababoon Cheikh Ibra Fall di ko def di ko def ba 1930 bi mu fi bàyyee ko it li mu daan faral di digle ci jëfal baam Bàmba mooy ataamuruuna naasa bil birri wa tanzawna anfusahum ba ñu cee dal waaye nag itam ñu daan def lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun li ñuy jëfal sëriñ bi ñu tànn ñun lañu gën a bëgg xañ ko suñu bopp te jox ko sëriñ bi ngir moo ñu may li ñu bëgg àddina ak àlaxira ci noonu nag la wéyee ba Cheikh Mamadou Moustapha jël liggéey bi ci 30 di ko wéyelee ci ni ko sëriñ bi diggéeyale woon maam Cheikh Ibrahima Fall ba ni mu fi bàyyi ko Cheikh Mamar Talla Fall féete ko foofu penc mii nag sëriñ Aliou ngi fi sanc 1954 54 googu nag ci ndigalal Cheikh Mamadou Fadal ci la wéyal liggéey bi di ko def di ko def ba ni mu fi bàyyeekoo 78 Serigne Cheikh Mbaor wéyal ko liggéey bi nag mooy eh, li wolof yi naan ko yokkul yaa wàññi day mel ne ndab ya Cheikh bi Fall doon def buntu kër goo dugg tey def na ndab loola ay yéene waaye mu def ko ba doublé ndab yi nga xam ne moom fa daan jógee di tàbbi kon loolu mooy jëfe ndigal ak liggéey bu nangu foofu lañu toll ci liggéey. jërëjëf sëriñ bi euh, comme ni nga ko waxee rek ci taarix. waaye mel na ne liggéey bi bi ci Serigne Cheikh Fall Mbawar jotee liggéey signal yi boobu signal yi Fall Serigne Cheikh Fall Mbawar da gën a yokku ba fi mu toll nii tey ku gis liggéey bi xam ne yokk na ko. waaw yokk na moom laa la junj léegi ne la bu fekkee dañ ne ca jamonoy rek Ibra nangami dab la daan doon ak super bi tey buntu kër Cheikh Ibra koo dem doublé na dab yooyu ay yoon yoon yoon yoon a noppi nag soppi melukaanu dab yeet ci waneen melo ndax eh, ba fi Cheikh Ibra di ne foofu la jamono toll woon waaye nag jamono rombet dañoo daw topp ci nga xam ne bëgg nañu fépp fu jamono toll te sëriñ bi toll fa rek lu mu sori sori fas yéene nañoo xelu fekk ko foofu loolu moo waral nag moom it yëkkati gi nga xam ne yëkkati na ko liggéey bi ci gàtt yi waaye liggéey bi yëkkati gi nga xam ne yëkkati na ko ci kumte yi waaye yëkkati nga xam ne yëkkati na ko ci soppi liggéeyin wi ak yaatal dab yi loolu moom liggéey la bu yaatu boo xam ne um, kenn ku nekk xam na ne uh, gën naa yaatu bu baax a baax. gën naa yaatu Fall yaram euh, ñu gis euh, seen ànd ak waa kër sëñ Mortala mel na ne loolu lu yàgg la euh, ci soxna Fatou Diop Saer dañ jug nag ci di ko wax ndax dañ murid yi dañ ko rafetlu lool te it loola xam naa ne sax lu jiitu suñu judd la loolu. waaw loolu lu yàgg la ndax maa ngi wax ne 1930 bi Cheikh Ibra Fall jógee sëñ Mortala Fall daf ne dann Cheikh Mouhamadul Moustapha ànd ak moom liggéey boobu. waaye jamono yooyu njabootu Cheikh Fat soxna Fat Diop Saer gépp ni ñu defoon mooy tënku ci liggéey bu yaatu boo xam ne fu Cheikh Mortalla teg tànkam ci waaxu wuti liggéeyal Cheikh Ibra Fall bu geesoo gis sañal yu ci wetam ci jëf akuk njàmbaar akuk dox ndax wax nañu ne daanako yut nag yoo xam ne ci bi nga xamee ne sëñ Modou Sa toog te sëñ Mortalla di liggéey liggéey bi bu masaan jógee Mbawoor jëm si Mbàkke wala jëm si Touba wala li ko wër wax nañ ne nag yi daana takku takku goo xam ne daana mujj egg foo xam ne dañuy réer ci yoon wi nga xam ne dëkk yi ñuy jaar ay nag dafay ruus des fa ba bu déwénee dañ fay jaar ñun leen yéen kat nag yi ngeen fi jaaraloon daaw nag yi bàyyi faale daf ci wala eh, gàtt yi fi jaaroon daf cee am yoo xam ne dafa desoon ci dëkk bi ndax yaatu gi ba yëpp jotul woon a dem xam ne dañ koy boolewaat ci lim bii ñëw wax nañ ne daana ko jox léeg-léeg juróom-ñaar fukk wala juróom-ñaar ci ay lim yu takkoo takk yoo xam ne daana ko def ciy gàtt bi nga xam ne sëñ Mourou saa jóge na fi te sëñ Mawta la yor liggéey bi ñetti at yu gàtt waaye yaatu ab liggéey eh, sangaan muy 1950 ba 54 àggoon na ci sëriñ bi moom amul woon ak bëgg muy sëñaati lenn lu dul sëñ Mawta la am réussite ci li nga liggéey bu yaatu bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ak doxin bi nga xam ne mu ngi koy dox jëm ko ci Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne waxtu wu nekk ak juróom da daan ñëw. waxtu wu nekk ay addiyam da daan ñëw waxtu wu nekkit mbooloo moomu dañ daan ànd ak Cheikh la ci liggéey bi ba mu am eh, ba mu amee ko ni mu ko bëggee eh, loolu nag la njaboot gi wéyal ba 54 bi sëriñ bi làqoo muy Cheikh Mortala mboolem njabootu Cheikh Mortala Fall géppit àndandoo ak ëttub Soxna Fat Diop jublu itam sëriñ Aliou Fall muy seen jëwrin ci biir toolu Cheikh Ibrahima Fall loolu moo waral ànd gi am na jamono yoo xam ne sax kër sëñ moor gannaaw sëriñ Mor te sëñ Aliou yu nekk fi kenn ku ne la muy def te jëmee ko ci ndog yi waaye la muy def te jëmee ko ci liggéeyu yoon wi daf daan ñëw rek jébbal ko signal yi ba ci sax yeneen njabootu Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Abdou Sakor bi mu fi dooree kii it am na jamono yooyu ëpp ci liggéeyam daf ko daan jofal ci signal yi loolu moo doon ànd bu rafet bi amoon ci seen biir loolu nag moo sabab bi yu làqoo te sëñ Abdou Aziz Fall sëñ Sidi Fall ñu ko njëkk a toogee xilaafa gannaaw bi Cheikh Abdoul Aziz bu waxtu wu nekk kër gu ci nekkit bu ñu fàggoo la ñu fàgg ba noppi ñu daje ki gën a féete ndaw fekk ki mag ñu àndandoo jiital njaboot gi ñu dem jëbal ci ko Serigne Touba loolu moo waral nga gis kër sëñ Mor ak kër sëñ Bassirou Fall ak kër sëñ yu di ànd looloo daf ci wàlli sit loo xam ne bokkuk démb la ndax ku ne xam na ne soxna Fat Diop Sayer maam Sayer Diop mi ko meññ ak sëñ Bassirou Fall maam Awa Jaxate Diop mi ko meññ ay doom doomi bàyyi lañ looloot moo dugal waa kër sañ Baara Ndiaye ci liggéeyin boobu nga xam ne ànd nañ ko ak njabootuk son Fatou Diop Sayar te Cheikh Ibrahima Fall santaane woon. suñu maay bi xam naa ne kàddu yu mujj yi ndax léegi tey rek ndoge yi war a defar euh, ngay ànd ak xale yi euh, di sëriñ bi jox la liggéey bi ngay jiitu euh, ñuy topp ci sa ginnaaw mel na ne ñu ci ànd ak mbégte ak sawarte di weeru koor gi feek fanweeri weer weer yi fan feek fanweeri kii matut fan fan yi matut duñ tàyyi benn yoon ndax liñ lay gis ci kanam. waaw loolu daf ñoo war rek ndax euh, diine moo laajul ab joxañ dem leen defi nangam moom boo koy wax benn bi da nga leen koy joxoñ beneen baaraam bi ci sa bopp la war a jëm ndax yéen ci yem ab yem wàccuwaay bokk itam même point d'égalité nga xam ne kon ànd liggéey bi rek bu ñu ayal sala ci diine ayalal fala teqiwul imaam bi teg fee jiital ñi ci des wala <laughs> lu ni mel beneen bit mooy dem bi dafa am lu mu laaj ndax ñii dem ñëpp. tolloowuñ niveau yemuñu ay jikko ñi ñuy dajal ñëppit seen niveau tolloowul jikko yu bokk kon dafay laaj mu am ci seen biir ñoo xam ne ay régulateur lañ doon yoo xam ne bu ñu gisee loo xam ne am na lu mu mën a jur ci lu bokkul ci liggéey bi wala lu ko bëgg a xajaman ñu mën a teel a taxaw ndax gannaaw liggéey boo xam ne Cheikh Ibra Fall wax nañu ne bu daan dem ci sëriñ bi bu jógee ba sori dafay wax sëñ yaaram yaaram ana diwlum wax ki ko woosi mu a ko n na nga wuy ji sëñ Bàmba mu àgg suuf daal na ko wuyul sëñ bàmba ci nopp euh, moo dàqalem ci gémmiñ daal ne turu sëñ bàmba de góor gu ko dégg da ngaa war a sangu ji farata di laaj satalaam jàpp door a jógaat kon kooka kam jëm yóbbu fa baj-baj kam jëm yóbbu fa puukare kam jëm yóbbu fa ak ñàkkadal kon loola dafay baax bu nu tolloo ci fenn fi te am ndaw ñoo xam ne seen deret dafa toll ci yëngu ak yu ni mel ñu xam fi ñu jëm fan la ak lan lañu ñu fay wuti ko defee nag yu mel noonu fiiru seytaane ak pexem daf ci yomb kon dafay baax ci giide leen waaye dafay baax ci tett leen te dafay baax itam ci dalal leen ba ñu xam lan moo leen yëkkati ba liggéeyu seytaane bañ cee tàbbi. ñu dégg nga naan póotum tey kenn du ko wol ci naaju naaju de. waaw <laughs> ah, loolu mooy póotum tey boo ko bëggee woowalee naaju démb du wow naaju démb jàll na te du dellu si loolu liñ ci jublu rek mooy. Euh, buñ ne ayee la sala ayee la fala tisbaar ayee la sala ayee la fala wax ko timis goo ci jël rek bor topp la ci yow nga xam ne yaay aji def ji kon dafay mel ne pour sëriñ bi joxañee ndigal bàyyi faal bu jóg dem suba ñu woote nga ne demoon naa démb kon sa póotum tey wéeroo ko moom ñun li ñu wax rek mooy sami'na wa ata'na loolu moo jur kàddu googu hmm. <laughs> waaw sant rek sant bu baax ak ñaan suñu ni ñu tàbbee ci liggéey bi nii ñu tàmbali ko jàmm àggale ko alhamdulilahi rabil alamin te daje ceeg ngërëmal ki tax ñuy liggéey waaw loolu rek lañ ci lañ ci wut mooy liggéeyal yàlla euh, jaare mu sëñ Tuubaa di suñu bunt waaye ñu ci wut ngërëmam euh, loolu mooy wax ji di ci soññi mbokki taalibe yëpp itam di soññi mbokki jullit yëpp ci liggéey bi ak taxawaay bii ndax liñ ci xamee yéene nañ ko képp ku nu bokkal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah loolu bokki taalib yëpp ak fu moo xam ne ndigal laa ngi nii naaju démb weesu na ñu ngi ci wutay kon nañ ci daal di jublu rek waaw ah, te fas yéene koo amee wa rahmatullahi wa barakaatu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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha yi jërë ngeen jëf euh, jërë ngeen jëf comme ni leen ko toppalee rek fële nga xam ne mooy Touba Palen fële ci kër Serigne Cheikh Fall ñu ànd ak euh, mboolem njaboot gi rek gis ngeen bool yi ni ñu ko yoonoo sikkar si euh, Serigne seex Ndoye Baye fal di ñaan suñu boroom gën ko fee dolli yàggal te wéral ko noonu la ñu àndeek ñoom ba fii nga xam ne mooy résidence Cheikhoul Khadim de ngeen xasida yi noonu euh, Serigne baa ngi ci biir waaye nii lañ ko fas yéenee ànd ak yéen rek ci mboolem euh, weeru koor gi yëpp rek du ngeen du ngeen duñ bàyyi dara ci ndogo yi fépp fu njabootu maam Serigne Fall di toggee ndogo dinañ fas yéene ànd ak yéen wan leen ko wan leen réalité bi nga xam ne njabootu maam Serigne Fall moom lañ nekkee ci weeru koor gi kon noonu la ñuy àndaat ak yéen ci yeneen jamono ci yeneen buntu kër ànd ak suñ mbokki caméraman yi di leen sant bu baax di leen gërëm eh, ci li ci dëng rek ci kàddu yi ñuy yëkkati ci weeru koor gi lu ci dëng rek ngeen xam ne doomu aadama moomatut waaye lu ci jub rek nañ ko sant yàlla kon ñu de ak sëriñ bi bàyyi leen ak sëriñ bi di sëjib bi maa faaxa sanni wa bi maa faaxa rabbi kulla sununi barke maam Serigne Fall